njaw di wéy di desu xambin ci Benno Bokk Yaakaar ana nan la ñuy def ba gagné département bu Mbacké rawatina fii ci Touba élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn Benno Bokk Yaakaar ñu naan leen bopp fas bi ñoom nag dañoo ñàkkoon élection yi ci département bu Mbacké ñàkk gu doy rawatina fii ci Touba ñenn ci analise politique dañoo jàpp ne Benno Bokk Yaakaar ñàkk gu doy waar gi mu ñàkkoon élection locale yi ci Touba ci département bu Mbacké li ko waral bokk na ci lu jëm ci kilifa diine yi nga xam ne dañoo signé woon ab ngir ñu criminaliser borom ñaari tur yi yi député yi bokk ci benn bokk yaakaar daal di gàntal lu ni mel la waaye nag njaw di wéy di desu xambin ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam élection député yi soo moytuwulee benn bokk yaakaar dina gën a am ay jafe-jafe ngir gagné département bu Mbàkke rawatina fii ci Touba ndax fii ci Touba askan wi ñenn si ñoom ba léegi mënuñoo xam lan moo tax député yi bokk ci benn bokk yaakaar kilifa diine yi nekk ci réew bi signé ab pétition bëgg ñu criminaliser borom ñaari tur yi député yi bokk ci benn bokk yaakaar gàntal lu ni mel ñenn ñi nee nañu ñi nga xam ne ñuy éleveurs yi bi ñu bëggee ñu criminaliser vol de bétail yomboon na lool la ngir député benn bokk yaakaar yi daal di koy jàllale ca assemblée nationale la ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi kero ñu bëggee ñu criminaliser viol loolee tamit yomboon na lool la député benn bokk yaakaar yi daal di koy jàllale ca assemblée nationale la lan moo tax kilifa diine yi nekk ci réew mi bi ñu sàkkoo ñu daal di criminaliser borom ñaari tur yi lan moo tax député yi nekk ci benn bokk yaakaar daal di lànk lu ni mel la moo tax fii ci Touba ñenn ñi li ñu wax mooy élection yi nga xam ne moom lañu dëgmal nar naa metti lool ci benn bokk yaakaar ci département bu Mbacké waaye tamit rawatina fii ci Touba ndax nag du ñu jël ay député benn yoon di leen yóbbu assemblée nationale te nag bu kilifa diine yi sàkkoo ñu criminaliser borom ñaari tur yi ñu lànk kandaare ñenn ñi jàpp ne nañu jéem a xool député yoo xam ne bu ñu leen yóbbu assemblée nationale ëllëg si biir bu kilifa diine yi bëggee ñu criminaliser borom ñaari yi dina yomb lool si ñooma élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal soo muy tuulee daal dina metti lool ci benn bokk yaakaar ngir ñu gagné département bu Mbacké rawatina fii nga xam ne mooy tuuba ndax am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi daas fanaanal mer mu yàgg moo xam ne meral nañ ko benn bokk yaakaar kero bi nga xam ne daat nañu rejeté lu jëm ci proposition de loi bi nga xam ne collectif sàmm jikko yi yóbbu nañ ko ca assemblée nationale la